kan mooy Paco bu série bété bété ñu bëri xamul ni Paco mi taasukat bu mag la waaye ñu bëri nag ñu ngi ko ràññee ci série bii di seri bété bete tey nag dinaa leen wax moom Paco fan la jaar ndax def na ay son yu bëri clip yu bari waye aussi est ce que xam ngeen ni Paco mi bokon ci dàq sanje fi ni ci diwanu senegal fon na fi featuring mom ak Wally Ballago sek ben son bu won lol mu nek son turam deug nak di pap sek Afia li indi Afia bi nak serigne moo ci toftal muy serigne Afia mbake Mom nak bi ngi juddo Pikine benn instant bu demoon cees ñëwaat Pikine papam nag moo doon tëggal kii ñuy wax coon se nekk monsieur Pathé mbay moom mi di pakkoo nag juddoo ci famille géwal maanaam di tëgg di taasu di way di def lépp li nga xam ne ni askanu ngéwal da koy laaj rek moom da koy def def na ay études nag waaye dafa mujj a bàyyi concentre bu baax si aar teel naa voyagé ndax papaam mi ngi woon Hollande boobu mi ngi gën nekk xale muy dem Hollande di dem ak ñëw waaye boobu nag mi ngi doon ñongal métier bu baax a baax teewul boobu mi ngi doon génne ay kilibam ak ay wayam waaye ñu bëri ràññeekoon kon baax xanaa ñenn ñoo ko xamoon ndax boobu tax koon siiw ndax jamono ji Pape Seck di siiw di gën a am buzz mën nañoo xam ne boobu ay TikTok wala ay Snapchat yu bëri amagul jamono jooju sax ci la commencé di cartonné di toj Pikine sabar ak yenn programme après na ci la commencé voyage yi dëggal boppam ci diaspora bi maanaam nag yu bari lii la ñuy wax aaram di tëgg ak di way waaye téere nag muy jàngal tubaab yu bari lii di fecc ak way moom Paco muy aussi di organiser ay festival yu mag a mag waaw Paco di toj foofu noonu Europe bu baax a baax ñëpp ràññee ko fa bu baax a baax ndax man liggéeyam ci li ñu waatee Sénégal nag installé wu daal di def ménagère am kii di Souleymane Awalaay ñu koy wax Rosé bu kër brisé pour mu nekk ménagère moom nag mën nañu wax ni musul xalaat gérer lii nga xam ne moom mooy ay série waaye kii di Jules bu cœur brisé moo ko wax ni Pape Seck est xam nga da ngay jouer benn série mu ne ko non non man ko sama xel mi mën nañu wax ni Rosé kon mooy Paco ba mu bokk ci bii di série bété bété fay mu fay joué benn rôle boo xam ne nag géwal la fa maanaam benn géwal buy toj géwal bi nag dafa bëgg géer waaye géer bi nag au début dafa bañoon waaye Paco nag fexe na ba convaincre ñoom ñaar instant ñuy génn. mais noo mën a génne façon parole yi sa génn fay. eh yow laay xool xool ma. Pako su dee mbëggeel war naa la ko lépp lu am si diggante maa ngi koy def mais sama bopp laa la joxagul moo tax xëy na ngay dem di xooli feneen yéeg ma jox la sama bopp nga toog. et tu te trompes nag kon yow foofu ngay xalaatee quoi kon yow man su ma la déggee rek man sama xel man lu ma mën a xalaat mooy kon yow kon yow xam nga góor si jarul xool. noo mën a xalaatee loolu Paco. waaw loolu laay xalaat yow noo mën a xalaatee ni yow tey yow man war naa mën a sa kaw loolu wax la yow. wala bëgg nga njëkk si man. ok c'est ça et qui soo au bugger. il faut ko dimbali xam dama laa bug. il faut ma il instant yow sa valeur nga bëgg a jël asaaloo ko ni kon li gën a seer ci yow li gën a important ci yow li tax tey nit di daw ngir daj lu ne pour jot ko loolu nga bëgg a jël nii sànni ko nii ci ngelaw li. Paco bu dee mën na la téye pare naa ko jox. bee sama diggante yow du loolu moo koy téye. man li may wax dëgg la ci man dama laa bëgg te yàlla tax du loolu laa la toppee bu doon loolu dund naa ko ak yow bu yàgg. moom Paco sax si benn interview dégg nañ ko mu ne moom loolu mës na koo dund en personne. mi ngi wax ni sax jour boobu ci la fasee jom ba nii kon série bété bété li ñuy wax foofu yëpp am na bu baax a baax sama gars yi tey nag ki mu indi loolu mooy Paco bu série bété bété mu jaaroon nag benn jaar-jaar bu nga xam ne taasukat la léegi nag mi ngi joué ay série waaye ba tey mi ngi ci biir aar bi mu mën loolu yàlla ko yàlla dimbali. ku kafu ci réew ci xamal seen kër googu lu ñu xam bañ nañ ko ba du ñu wax olof ar yi ngay dégg ar gaay ar watar ngay dégg te yow gin cee nga xam génn ci ñooñu ba set wicc wax naa lu mel ni mi di nag li ma wax fii laa lay waxaat léegi nee naa la mu metteeg mu tàng gin cee ar watar sama ne bëgg naa ko bëgg na ma damay doxal li jëntuma leneen du nga xeer ba ca yaa ko gën a dëgg man li ma lay wax na dama la koy wax xam nga lu ma bëgg pako nga arrêté ta nek nit bu nit ni di wax ak yow dañ leen di déglu ñun xol liggéeyuñ ko defuñu ko dara moko ko yow kañ nga melni kañ nga daan dëkk eh sikil nga xol ma euh, papo gis nga dafoo dina jàmm man sa jàmm la la bëggal te yow gëwël nga pire kula bañ gën ko bañ te bëgguma ñu lay toroxal di la wax lu dul naka su dul non xalé yaangi fi sa mbokk gëwël yaangi fi fess fi del jongoma bay bëggal yow kañ nga daan daw ci jigeen yow fi pitaa réew mi yëpp jeexal nga ne Pago man ngay waxal di maay wax ak yow. kañ nga daan bëgg. kañ nga di joxe ko ku la bëggul na bu ko bëgg xale yu géwal yaa ngi fi xooloo si ku fi gën a jongo ma nga ànd ak moom ku la bañ danga koy wan ne maa la gën a bañ. xam nga lu gën a métti di conseiller ku bëgg. li nga ñu wax a dugg fi jàpp. ah damaa di jom ñoo. non waa baax na jéema la bàyyi sa saami laa la kon ñu ya leen di wax ni bu leen fàtte ya abonné kolos de notification bi te ngeen wax ñu ci commentaire yi yéen artiste ak yéen star ngeen bëgg ñu indil leen seeni jaar jaar kon ba yoon ak pro vidéo bii di ñëw Same goes broad. siwal sa business siwal sa business ak authentique pro yow miy jaay wala liggéey bu mu mën a doon nga bëgg mu siiw léegi léegi léegi léegi jokkool ak authentique pro defal la ci sa contact dugalal la ko ci seen page YouTube ak authentique pro daal dina yombal sa business